jour ji moins six ñu jëm ci coupe du monde bi gannaaw bañ leen nuyoo rek jaajëfal leen ci topp bi ngeen ñuy topp saa su ne ci eh, information yu wérte leer leen di jox tey nag dañoo seet siwaat ndaanaan seet siwaat kilifa waaye seet siwaat borom xam-xam ñaan ko Cheikh Ahmad Bamba Sëy borom kurus gi ku gis rek kurus gi mu yor xam ni tur woy na tur ji bi wuy na mu am xam-xam lool ñu seet ko am ci moom yaakaar ngir mu ñaanal suñu équipe nationale bi waaye nag gannaaw bi nga xamante ni wax war na cee wax def na ci ay war na cee def ay révélation comme ni mu ko defee woon bii passé war nañoo génne ay sarax yi nga xamante ni baax na lool lool lool ci Sénégal comme ni mu ko defee woon ci Coupe d'Afrique bi waaye war nañoo waxtaan ak moom ci li nga xamante ni Ousmane Sonko war na ko wuy ji moom am na lu mu gisal Ousmane Sonko moo tax mu wooñu nañu faaw ma wax ci Ousmane Sonko waaye it faaw mu wax ci Karim Wade parce yàgg naa wax ci politique te ku xam politique la jamono ji ni muy demee ni bu génnee war bu waxee rek ñu bëri war nañoo bàyyi xel te xam ni kilifa wax na wanaa boobu rek dañ koy bàyyi moom Serigne Ahmad Bamba tur bi macha allah màgg na comme ni jëmm ji màggee xam-xam bi yaatu na moom Cheikh Ahmad Bamba Seye mu nuy mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan Serigne bi nuyu nañ la aousubillahi samin alim min sharri iblis al ayn sayidina wa mawlaana muhammadin xaatimi nabiin wa imaamil mursalin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum bi tahiyati l islaami wa aqulu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi xalifa général des mourides mm-hmm. alseex muhammadul muntaqa basiiru mbakke mm-hmm. al alxalifatul am li taaifatil muridiya ayyadaka la wa nasara di ñaanal yàlla mu àggale mébét yi nga xam ne moom la am ci xalifa gi nga toog muy xalifa ak sëriñ tuuba yàgg fi loolu te wér di ñaanal tamit sama maam ju baax ja sëriñ Bay Say mi nga xam ne dafa mm. àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi gërëm ko mu liggéeyal ko ba sëriñ Touba ko di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci ay barkeem di ñaanal sama waajur bu baax wi yi nga xam ne mm-hmm. alxuraan képp a ñor euh, di ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi lool te ànd ak wér muy mm-hmm. sama waajuru góor ak wu jigéen yëpp yàlla bàyyi leen fi ba mm-hmm. naa liñ am ci ñoom tamit ñu mottali ko ci ñoom barke sëriñ Touba euh, leen nuyu tamit yéen ñi nga xam ne yéen waay euh, waa Allô Sénégal dëgg la Euh, di leen wax bisimilah di ñaan di nuyu tamit sénégalais yëpp ñu nekk ci biir réew ak ñu nekk ci bitim réew. di ñaan yàlla sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ bi kontaan nañu bu baax waaye fi ñuy jikkee rek mooy kàddu yi nga xam ne daan nga ko yëkkati te bu dikkee rek sénégalais gis gis ni ni nga ko waxee woon noonu la amee ñu bëgg a wax ci loolu seet seet gi ngay def da nga ko mën macha allah. waa alhamdulilah seet moom suñu borom dimbal nañ ci euh, ba nga xam ne euh, képp koo xam ne xoolal nañ la sa ay mbir rek seetal la say mbir rek lum ci mënti doon dinañ la leeral sa mbir yi mooy li nga xam ne dundoon nga ko ci ginnaaw ak li nga xam ne yaa ngi koy waaj a dund ci sa kanam. Mm-hmm. ak li nga doon xam ne moom la ñu tuddee présent li nga xam ne moom nga toll. ñu mm-hmm. wax la lépp. Mm-hmm. ba nga xam ne yow mi seetal di nga xam ne gàllankoor yi mee nekk moo nekk ci yow. su boobaa nag buñ la seetlee ba pare dinañ la wax ne ah seet gi kat lii lañ ci gis moo xam sarax nga war a moo xam ay ñaan yu ñu la war defal moo xam xalwat luñ la war a dugal. moo xam ay sangar lañ war defal lu ci aajow rek seet bi dina ko génnee nga xam ne bu ñu la xoolalee par rek sa ajo lu mu laaj rek dinañ la lii la laaj su ko defee suñu ko defee sa ajo faju bu fekkee ne ay xéewal waroon a agsi ci yow la mm-hmm. incha allah ñu bu ñu la defal nii nga def ko xéewal yooyu dina agsi mm-hmm. bu fekkee ne ay gàllankoor ay jafe-jafe yu waroon dund mm-hmm. la bu fekkee ne loo xam ne sarax boo xam ne moo ko war a dàq bu ñu la defal sarax bi mu dàq ko incha allah gàllankoor yooyu dina la dina la dina la Euh, dina yàlla dina la ci musal incha allah. incha allah waaye sama émission bi tey grande partie waa bitim réew laa ko laa ko laa ko may moo tax ku wax waa bitim réew wax wàllum këyit ndax soxla nañ ko loolu yërëm naa leen bu ma gisee ñuy daw di gërti gërti ngir rek papier sëñ bi est-ce que am na loolu leen indil ñoom waa bitim réew ci wàllum këyit. waaw alhamdulilah loolu moom daanaka boo xoolee ndeysaan suñu mbokk Modou Modou yi dañ cee sonn lool wàllu këyit. ndaxte bari na ci ñoo xam ne dañuy dem ci sëriñ yu nekk di fa joxe seen alal yu nekk te daanaka lañ leen wax du am ndeysaan ndeysaan euh, euh, xëy na nag am na ñoo xam ne maîtriser wu wàllu ñaan Mm-hmm. parce que ay na ñoo xam ne wàllu alal rek moo leen dugal ci ñaan gis ne kii mi ngi ñaan ñu dugg ci ngir wàllu alal jàpp ne lu mm-hmm. yomb lu déedéet waaye damaa jàpp ne nit ki bu fekkee nekk nga ci lenn war nga koo maîtriser xam ko bu baax a baax a baax bala nga cee dugg suñ bokk Modou Modou ndeysaan da leen di yërëm lool parce que ñi ma woo bàyyil ma ci ay message ci sama mm-hmm, téléphone bi ci ay sëriñ yoo xam ne lekk nañ seen alal te defaluñ leen dara daanaka da dem ba sax ba yow sa jëm da ngay bëgg a génn ci loolu parce que da ngay leen di yemale te fekk nu yoote bokkul wallahi la xam na ko euh, am naa ci daayira boo xam ne mi ngi Ohio yàlla xam na ne sama daare alxuraan jële may tabax fële euh, ci sama dëkk bi mhm. daanaka daayira boobu sag weer dinañ ma dajale loo xam ne fa laa koy def loolu nag li ko waral mooy mhm. dañ dama leen doon ñaanal ci wàllu kayit ci wàllu kayit yooyu laa leen doon ñaanal ba kenn ku nekk la ma ax la ma wax ak yow dem nga ci ay sëriñ yu bari yàq fa alal yu jeex te ba nga ñëwee la ma la wax loolu nga gis loolu nag mbégte boobu ñu àndal moo dem moo tax ba tey ñu dem mm-hmm. Mm-hmm. dajale seeni alal di ko def ci daare alxuraan mm-hmm. ak jumaa joo xam ne tey moom laay tabax euh, loolu lépp nag sant yàlla parce que ñaan nag dafa war a ànd ak sell maanaam ñaan dafa war a ànd ak sell euh, ba pare di lekk loo xam ne du riba ba pare di lekk leew ba pare nekk ci li nga war a nekk loolu soo ko defee rek lépp loo ñaan suñu borom nag nangu nangu nangu ko ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax daal moom wàllu kayit te lépp nag incha allah bi képp koo xam ne am nga jafe-jafe wàllu kayit moo xam nga nekk ci biir réew moo xam nga nekk ci bitim réew wallahi azim boo jokkoo man incha allah rabbi sa aajo dina faju waaye keneen ki ajo di fajoom rek mooy ñi nga xamante ñi ngi bitim réew yàgg fa seddaay bi jàpp leen ba bu ñibbisee doon naka sax euh, dañ doon téye seen bopp waaye bu ñibbisee dañu am problème pour pour pour sëy ak seen soxna jafe-jafe kattan la ñuy am lu bëri est-ce que ñooñ tamit euh, bokk bokk na ma bokk ci xéewal yi nga xamante ni yaa ngi ko yor waaw kàttan de jamono ji sax am naa yu ma ci yoroon yu yu baax lool sax yu efficace yu mhm. baax lool lool lool waaye Euh, xam-xam moom day gën a yokk maanaam nit ki moom à chaque fois saa yu dund rek saa yu gën saa yu xëyee rek dina gën a xam mm-hmm. leneen leneen maanaam tey da ngay gis dara tey ñu génnee ko waaye bu ëllëgee nga gis marque oto bi bu mm-hmm. ëllëgee ñu gën a niveau niveau oto bu bees mm-hmm. loolu day am waaye suñ borom dimbali na ma ci jamono ji moom jàpp naa ne bépp sëriñ buy taxaw fi Sénégal moom wàllu kàttan moom tolloo ma ci catuwee wallahi asim yàlla may na ma loo xam ne su ma ko joxee nit ki ba mu jëfandikoo mooy kàttan gi ma yor nga xam ne jamono ji moom laay joxee képp koo xam ne jëfandikoo ko moom. Mhm. bu soobee yàlla wàllu kattan moom fii ak cent moom bu la neexee bul bul bul jàmbat si wàllu kattan. waaw wàllu kattan moom yor naa ci garab goo xam ne képp koo xam ne jëfandikoo ko muy koo xam ne yaa ngi ci biir réew mooy koo xam yaa ngi ci bitim réew ca wàllu mhm. kattan dong sonal la muy sa sa biir kër mhm. bu soobee yàlla boo jëlee garab yi moom incha allah sa aajo dina faj moom ba dootoo jooyati wàllu kattan incha allah incha allah waaye tamit dañuy jàll ci ñi nga xamante ni euh, dañoo mel ni papa yaal yi jigéen pour mu bëgg leen dañuy am problème muy mu bëgg a ci wàllum nopp est ñooñu tamit euh, mën nga leen a indil nopp lan nga yor ci wàllu nopp. waaw nopp moom euh, daanaka boo xoolee ci diiru trois jours rek lañ koy def. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne maanaam dafa bëgg ku jigéen ki mu bañ wala ku jigéen ki nga xam ne dafa bëgg ku góor mu bañ. Mm-hmm. wala koo xam ne sax tey mi ngi mel ne tey yow nga. dem ci benn tubaab am loo bëgg ci moom wala nga dem ci benn sénégalais am loo bëgg ci moom mu bañ nopp moom mooy loo xam ne rek tey mhm. maanaam da nga jàpp ne nit ki boo demee ci moom ak yow maanaam te am àndoog dara su la nga bëgg ci moom du am ah. nga ne bëgg dem ci sëriñ bi pour mu noobal ma ko mhm. pour que ma mu defal loo xam ne kii li ma bëgg ci moom dara taxal seen diggante mooy loolu mooy macha allah loolu solo de aajow ci diggante góor ak jigéen rek waaye mi ngi aajow ci lépp loo xam ne nit ki daf koy jëflante ni te amu ci Euh, con confiance. Mhm. mu jàpp ne bu demee la mu bëgg du am waaye la koy may kii la koy may con confiance mooy. Mhm. ñu mhm. noobal ko ko teel ko kooku ba nga xam ne la mu bëgg ci moom day am. waaye sëñ bi damaa dégg ni da mën ci wàllum xëccoo. Euh, waaw alhamdulilah wàllu xëccoo tamit suñu borom may nañ ci muy kuy xëccoo nguur muy xëccoo ndomba tànk bu mu mënti doon. kooku tamit yàlla may nañ ci loo xam ne secret bi nga xam ne yor nañ ko muy xulilaa maalikal mulki tuuti mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man watu sillu manta saaw bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir secret boobu yor nañ ci xaatim bi nga xam ne mhm. mooy xaatim bu wér bi mhm. te boobu jàpp naa ne moo amul kenn ku ko yor loolu nag man Cheikh baam ba sa yor naa ko mooy secret bi nga xam ne mooy secret bu nguur mooy secret bu xëccoo Mhm. képp koo xam ne liggéeyal naa la ko moom muy ngay xëccoo suuf muy ngay xëccoo ndomba tàng muy mhm. ngay xëccoo président muy xëccoo lu mu manti doon mhm. wallahi asim boo ñëwee ci man Cheikh Ahmadou Bamba Seye ma fal la loolu ci kàddu suñu borom suñu borom dimbal na ma ci loolu alhamdulilah koy donn waaye tamit xam-xam da koy jàng jàng na ko donn na ko moom Cheikh Ahmadou Bamba Seye moo tax mu toog sañ a waxtaan ak yéen mbokki internet Allô Sénégal waaye sëñ bi buñ jógee foofu dafa Sénégal dafa bëri ñoo xamante dañ cee dañ cee jóox te bokkuñ ci nit ñi ñi ngi daanu rab nit ñi ñi ngi ñi ngi yuuxu cat ñi ngi ñi ngi yuuxu naan dañ leen liggéey loolu lépp ñu dajaloo ko ci benn nit est-ce que kooku mën naa gudd fan sëñ bi looy dikk ci cat ak rab ak ak liggéey gu bon waaw bi ma ci njëkkee mooy cat cat sax daanaka boo xoolee am na ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mu ngi wax ci xasida sindi naan wakkun moon san la naa min sarri si xasadin ma xasari fammin wa saril xay ni yàllaaw mhm. cat mooy làmmiñ ak bët Euh, maanaam nit ki day xool dara léeg-léeg léeg sax nit ki xool benn maanaam su ma la mën a jox exemplaire xool lu weex tar morso bi waaye lii weex na de wala waa lii ñuul na de am na ci ñoo xam ne seen làmmiñ wala seen bët lu mu wax wala lu mu xool dafay yàqu tooke la waaw am na ci loo xam ne seen bët tooke la maanaam seen làmmiñ tooke la seen bët tooke la mhm. maanaam lu ñu xool mu yàqu wala lu ñu wax mu yàqu ñoo mhm. euh, ñooñu sax sëriñ bi am na ci xasida mi wax jawharu nafis ñooñu dañ leen di war a tëj ba nga xam ne Euh, maanaam waruñu génn di wax wala ñuy génn di xool parce que lu ñu xool mu yàqu wala lu ñu wax mu yàqu xam nga li ma wax euh, kon cat baaxul cat dañ ne bu rëyut semmal mhm. maanaam cat bu rëyut semmal cat dafay gàllankoor nit gaari nit mën naa gis nit koo xam ne mën naa yoroon alal ju bari yor ay milliards wala yor àdduna ak li ci oh. biiram waaye benn nit rek ñëw wax ci moom rek mu commencé di daanu ba jeexal kon cat baaxul képp koo xam ne maanaam yaa ngi sant sa yaram lu loolu rek demal nga xoolu ko ba xam lan la mhm. beneen bi ci topp mooy wàllu rab Euh, daanaka boo xoolee moom rab moom ni mu sonal bari na lool lool lool lool wax dëgg yàlla su surtout suñu mbokk jigéen ñi sax daanaka mënoo cee xool kenn kenn kenn ba doo gis rab ci moom waaye rab dafa nekk loo xam ne maanaam yàlla daf ko boole ak ñun ci suñu jëmmi jamono te daanaka ñi nga xam ne mën nañoo sàmmanteeg rab ba rab du leen dugg wala rab du leen topp yombul parce que li tax loolu mooy dafa am loo xam ne tey booy dugg ci wan ak moom nga war a wax mhm. wala booy génn waroo génn yenn heures yi wala booy lekk wala booy naan wala loo mënti def war ngaa wax loo xam ne tey mhm. soo koy def su boobaa rab du la mën topp wala te farataaluñ ko te am na ñoo xam ne sax daanaka duñ taxoo njàpp wala jigéen ñoo xam ne tey daanaka dañuy duñ set léeg-léeg yëpp te nañ war a def ak nañ a doxalee duñ ko def ba rab yooyu dañ leen topp mhm. waaw kon rab dafa nekk loo xam ne lu dansé la parce que rab euh, maanaam Euh, dafa dafa fiir mhm. bari na suñ mbokk jigéen ñoo xam ne tey daanaka tey dañuy dem ba am ay 30 ans wala duñ mën a am jëkkër wala ku ñëw rek dem loolu lépp rab ku góor ki mhm. ba nga xam daanaka kenn kooku day dem ba dafay tële ba dootul mën dara ci ci ci di koy def mooy ku góor ki bu fekkee ne ku góor ki rab bu jigéen mooy àndal bu fekkee ne ku jigéen ki rab bu góor lay àndal bari na jigéen ñoo xam ne sax daanaka tey ñi ngi sentir seen moroomu jigéen te loolu lépp lu rab moo koy def maanaam am na nu ñu koy tuddee ci français xaw ma lesbienne lesbienne voilà merci beaucoup la kon rab dafay indi lesbienne loolu lépp rab ko def parce que rabu seytaane rab bon dafay def loo xam ne maanaam lu bon rek moo moo ko ñor ndax ñoom njabootu iblis lañ waaw njabootu njabootu iblis lañ mhm. moo tax rab képp koo xam nekk na ci yow loolu nag moo waral lesbiennes yi bëri ci dëkk bi jamono ji loolu bari na jigéen ñoo xam ne tey ndeysaan dañuy seen bon te fekk moo leen jàpp sonal leen ba nga xam ne tey dootuñ sax euh, sentir góor waaye seen moroom jigéen lañuy sentir te ñooñu buñ dikkee ci yow nga saafaral leen te loolu tey bari ci ñoo xam ne tey su ma la tuddaloon ci réew mi wallaahi asim da ngay dar sa gémmiñ waaye ñaan moom àndut ak wax parce que secret ne damay def lii tey moom su boobaa doo toog fi wax waaye bari na ci ñoo xam ne tey su ma la tudd leen fii seen tur mhm. da ngay tiit ne déedéet loolu mënta nekk mhm. waaye ñaan dafa ànd ak sutura mhm. ndaxte ki ñëw ba ci yow taal otoom xaaju guddi trois heures du matin wala quatre ñëw ne la sëñ bi kat lii mooy soxla tur ronkoñam di jooy nga xam ne kii li muy def tey ko neexu ko waaye dafa am loo xam ne moo koy def loo di ko dindloo parce que rab moom bu xasee ba maîtriser rek daanaka lu ko neex la lay la lay def loo moo tax rab baaxut mm-hmm. muy ku nekk bu nekk ci góor gi mooy bu nekk fi jigéen gi mm-hmm. kon képp koo xam ne sentir que ne yaa ngi def dara te teyoo ko nga jàpp ne cat la wala liggéey wala rab la boo ko xooloo incha allahu rabbi dinañ la wax lan la mm-hmm. su ko defaa ko defee loolu nga xam ne tey mi ngi la doon gàllankoor ñu mën la koo dindil bam set benn bi ci topp liggéey daanaka daa bari ci jamono loolu ndaxte da ngay gis nit koo xam ne tey day commencé avance yor palaasam am di di di dox tuuti tuuti. Mhm. nga gis koo xam ne dafa taqaloog moom place rek commencé koo yàqal. commencé su toj ay nen ci buntu place. jalousie wala commencé jël ay saafara di ko fa sotti wala dem ci li sëriñ di ko di di ko def lu nekk di mhm. liggéey. Mhm. Euh, bari na sax léegi li ci ëpp mooy euh, daanaka suñ mbokk wujj yi léeg-léegi da ngay gis jigéen koo xam ne tey. yaayam dafay nekk wala keneen nekk fa. Euh, ku wujj wenn wujj bi dem di liggéey moroomu mhm, doomu wujj mhm, bi yooyu mhm, dafa koy def pour maanaam xeetu soxor pour xeetu iñaan parce que xam nga loolu bari na ci jamono ji loolu moo tax bari na ñoo xam ne li leen gaare maanaam danga gis ñoo xam dañuy am wërsëg macha allah dañuy am kii waaye dañ leen di gaare liggéey leen ba nga xam ne parfois sax am na ñoo xam ne dañ leen di naawtal nga xam ne dañu génn di dem wala ñuy tax wala wala fu ñu xëyee duñ xam sax fan lañ jëm loolu lépp liggéey daf koy def parce que liggéey dafay gàllankoor nit ki ba nga xam ne mhm. maanaam wërsëgam dafay tëju lu mu yaakaar day tas mhm. gàll bari ay gàllankoor mhm. dem ba nit ñi sax dootuñ ko nawloo loolu lépp liggéey daf koy def cat daf koy def rab daf koy def yooyu yëpp dafay gàllankoor nit ki ba nga xam ne nit ki maanaam dootul nekkati à cent pour cent loolu mooy li nga xam ne mooy liggéeyu rab ak cat liggéey ak ak ak ak ak nu mu tuddati euh, euh, liggéey loolu lépp ñett yooyu daf koy def ci nit ki ba nga xam ne daf leen di gàllankoor yu baree baree moo tax boo xoolee li ci sax góor ñu bari léegi néew nañ kàttan ndax rab yi tamit aussi waaw dañuy jàpp nit ki wàllu ka awraam wàllu kattanam ba nga xam ne tey day mhm. dem ba dootul mën a dara mooy jigéen ñi nga xam dañuy gént di sëy maanaam parfois am na ñoo xam sax dañuy gént di sëy ku leen jege léeg-léeg ñuy sëy seen nijaay wala seen waajur wala seen mag bu góor wala seen rakk bu góor loolu yàlla nañ ci yàlla góor gi tamit aussi noonu la koy dikkee moo tax rab baaxul liggéey baaxul cet baaxul képp ku ñett nekkee ci yow rek fexe mu deñ ñett ñett yi lu dansé dansé la dansé yoo xam ne euh, ku nekk ci yow rek ngi noonu rek noonu la indil ay gàllankoor yu bëree bëree bëri waaye insha ci ñett yi ma wax yëpp ci yàlla képp koo xam ne ñëw nga ci man si Ahmadou Bamba mhm. su ma xoolee ba xam ne benn moo wala ñett yi moo boobaa juróom-ñeenti fan insha allahu rabbi ñu saafara ci yow ba mu set insha allah muy rab muy cat muy liggéey benn baaxu ko ci doomu aadama te kum nekk kum yàgg ci yow doo gudd fan waaye sëriñ bi fi ñuy dikk mooy li nga xam ne dee nga ñu ko ci Ousmane Sonko est nga mën nga koo wax ci kaw waaw alhamdulilah Ousmane Sonko dafa nit nekk nit koo xam ne suñ borom daf ko may muy nekk nit koo xam ne maanaam su ma wax muy ma wàllu ngelaw la. Eh. maanaam ngelaw tey mhm. mënoo jàpp yow air bi mënoo koo mënoo koo jàpp maanaam. tey li ngay def nii mënoo jàpp dara. Mhm. waaye miir boo ko téyee nii mën koo jàpp. Mhm. Ousmane Sonko nag dafa am loo suñu borom dafa ko may. loo xam ne yàlla képp moo ko mën a gàllankoor waaye benn doomu aadama mënut a gàllankoor muy Macky Sall muy keneen ak keneen Ousmane Sonko dafa am turu yàlla boo xam ne daf ko yor di ko wërd. Ousmane Sonko Euh, kon bàyyiwul boppam. déedéet Ousmane Sonko yor na tur yàlla boo xam ne daf koy wér. ndaxte mu Sonko mi nitu yàlla la ak ni mu amee doole ak lim man nga xam ne benn nit képp nga xam ne tey bu ko sañoon tey mi ngi mi ngi ne ko ràpp ci kaso bi te nit kooku leer na tey boo ko tëjoon ci kaso bi teew doo am jàmm kon nit kooku war ngaa xam ne am na lu nekk ci moom mhm. ndaxte saa yooy jógee ngir gàllankoor wala dara rek nga gis nit ñi commencé jóg wala gàllankoor commencé am ak loo yor armée armée ak loo am am doole wallahi al azim Macky sàll bu ne woon ci tey Ousmane Sonko su boobaa ak wàccam ci ci nguur gi xaj na ci loolu nag ak mystique am na ci ak turu yàlla boo xam ne mu ngi koy wérde ak ñoo xam ne ñu ngi koy ñaanal waaye maa ngi koy wax mu gëna Euh, jàppaat bu baax a baax ci tur boobu nga xam ne mu ngi koy wérde mhm. ak ñaan yi nga xam ne mu ngi koy def loolu ndaxte mystique yi nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci moom ak gàllankoor yi nga xam ne ñu ngi ci moom ndaxte am na ñoo xam ne tey bu ñu sañoon mu dee wala bu ñu sañoon mu tëj ci kaso bi ndaxte am na ñoo xam ne tey jii bu ñu sañoon 2024 am te ñu ngi ci pexe yooyu kon Ousmane Sonko na gën a jóg ci boppam bu baax a baax a baax bu wàññee tuuti rek euh, su boobaa moom mën naa mën naa mën naa daan te bu xasee ba 2024 raw ko su hmm. boobaa euh, na bàyyi politique mën naa bàyyi politique parce que mën naa toog de waaye mën naa mën naa mën naa yàgg waaye na dafa am loo xam ne maanaam moom laa koy dénkaat bu baax a baax mu gën a góorgóorlu boppam mu gën a def ay ñaan bu baax a baax a baax sarax yi nekk ci kanamam mu mm-hmm. génnee ko mën a mën a mën a mën a continuer yoonam Ousmane Sonko du ñàkk ni mi ngi lay dégg parce que sarax yi ma ko gisal wallahi asim moom la war a te bu ko xasee ba état bi génnee ko ci mm-hmm. boppam moom sànku na moom ci jëmmam bu ko génnee nag moom moom moom moom mën naa dem waaye bu xasee ba état bi génnee sarax yi nga xam ne moom lañ ko war a defal rawaxaanam soxla ko mm-hmm. su boobaa moom sànk na 2024 moom du du nekk dara. ah waaye bu fekkee ne wax nañ ko sarax yi mu génne ko bu soobee yàlla bu ko génnee moom kenn mënu ko téye ci kàttanu suñ borom. waaye keneen it koo ñu dee ay mbiram muy Karim Wade. Mhm. waaw alhamdulilah Karim Wade xam nga waxoon naa fi sama émission boo xam ne dama ne woon 2024 mooy nekk président de la République du Sénégal. ba tey fii may wax ak yow nii. Uh-huh. gisuma lu lu deñ ci ci ci sées bi maanaam gisuma mu mu mu mu jóg ci sées bi. Uh-huh. waaw gisuma mu ci sées bi. waaw kon Karim Wade gëm nga ni 2024 moom mooy nekk président Sénégal. maanaam ba tey jii dama ne gisuma mu jóg siis bi xam nga suñu borom moom dafa nekk koo xam ne euh, mooy az-zahiru wal baatinu yàlla dafa nekk koo xam ne ku feeñ la ku nëbb la. Mhm. waaye ba tey jii ba ma waxee ba tey Karim Wade mooy nekk président daal ba tey fi mu nii may wax ak yow nii tembe Euh, li ma ci mujjee gis biig mooy ba tey jógagut ci sees bi waaye nag suñ borom dafa nekk koo xam ne moom maanaam lu ko neex lay def mën naa dem ba ñett minutes wala ñett wala ay fan sax mu changé mu changé waaye ba tey jii may wax yow moom Karim Wade jugut ci sees bi moom dëgg yàlla waaw eh, ba tey jii kon nag mu nekk mu nekk ay révélation yoo xam ne yu ma tax bàyyi xel la Karim Wade moom mooy nekk président 2024 waaye tamit président Ousmane Sonko am na ay sarax yoo xam ne bu ko defee mun naa mu toog ci chaise bi. Mhm. loolu mooy wax ji waaye sëriñ bi fi ñu jàll rek moom tamit am na ay sarax waaye am na ay xalwatu yoo xam ne war nañ koo dugg lu mat ci ay 45 jours yoo xam ne bu ñu ko fatoo génne sarax yooyu incha allah yàlla mën na koo dimbali bu baax a baax a baax. Macky Sall it troisième mandat bi ñu ngi koy laaj. Euh, bu ah, ne xulillah mulk tuuti mulku <laughs> uh-huh. man mulk tuuti mulku man nguur yàlla mooy joxe nguur ko mhm. waaye bu yàlla di rocc nguur ci nit mu ne watan si amul ko mi ma tasaaw su may jël nguur ci nit dama koy rocc maanaam dama koy nocci comme mi ngi mel na nga jël sa pusa di di di di di ñaw boo koy nocci ni muy defoon di jeex noonu la nguur di jeex ci Sall ne fi suñu borom day noc nocci nguur gi ci moom xam nga man nekkuma koo xam ne maanaam sëriñ boo xam ne dama naan Macky Sall damay soxla ci moom dara wala ma bëgg am ci moom dara naan ko mën ngaa toogaat déedéet képp sëriñ boo xam ne génn na Macky Sall day toogaat waxul dëgg te la wax amul Macky mhm. Sall nguuram jeex na waaw lii moom man si Ahmadou Bamba Seye maa ko wax te wax na waxoon naa ko waxaat ko waxati ko te incha allahu rabbi 2024 moom bu soob yàlla keneen mooy nekk président waaye du Macky Sall te na def très attention nag ndaxte mhm. gis naa deret ju bare bare ci mhm. kawam te su mën na am ay jafe-jafe yoo xam ne mën na ko gàllankoor na moytu bu baax a baax a baax moom Macky Sall mi ngi na président nag Macky Sall moytu bu baax jëlaat ay gardam ndax xam ni askan bi jamono ji mhm. li ñuy laaj na leen ko jox te moom xam ne la ñuy laaj troisième mandat dañ koy tere mhm. waaye sëriñ bi fi ñuy jëm rek mooy wàllum coupe du monde bi mhm. am na ay sarax yoo xamante ni waxoon nga ñu génn ko ci coupe d'Afrique te bañ ko génnee te nga jiitu ci bañ ko génnee gis nañ gis nañ résultat coupe du monde lañ jëm joueurs yaa ngis gis bi ñu nekk coach bi yaa ngi gis pression bi nga xam ne tegu na ci ci convocation bi nga xam ne jox ko Saliou Ciss lan nga ñuy digal ci sarax waaw alhamdulilah xam nga ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk bu ñu sañoon Sénégal euh, li ñuy xëccoo rek Sénégal mooy jël ndam ni mm-hmm. ndaxte xubbul euh, watani minal iman yonente bi moo ko wax bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk mm-hmm. ndaxte bu fekkee ne Sénégal tey dafa jóge Sénégal war a dem Qatar di xëccoo ji coupe du bi boo sañoon oh. wax dëgg yàlla mu indi coupe bi te loolu lañ ñaan yàlla te saa yu ñu xëyee suba ak ngoon dinañ ko ñaan yàlla ngir yàlla may ñu may may may leen dam di ñaanal tamit aussi ki nga xam ne mooy Sadio Mandé suñu borom may ko ak féex ak taw féex Taysiir ba nga xam ne incha allah rabi coupe du monde bii ñu jëm mhm. nga xam ne ñun Sénégal ñoo ko war a dem Qatar Sadio Mandé moom bokk ci waaw ah, di ñaan yàlla tamit su ñaan yi may ñaan su ma sañoon coupe bi ñëw incha allah. Mhm. maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom jox ñu jox ñu jox ñu coupe bi. Mhm. waaye tamit euh, maa ngi ciy digle tamit ñu def saraxu ndox balaa ñuy dem ca ca coupe ba euh, bépp sénégalais boo xam ne euh, mën nga génnee 66 li mu allahu ci mhm. ay sachet ndox nga sarax ko nga génne. yu juróom yi wala yu fukki dërëm yi. waaw wala boo mënti génne rek yu fukki dërëm yi sax xam naa ne mooy gën moom bu ko mënee génne. waaw mhm. balaa Sénégal di dem. balaa compétition bi balaa mbir bi di tàmbal allah nañ ko def. baax a baax yaakaar am na ci. te képp kenn koo xam ne moom yaakaar naa lixlaas moom képp koo xam ne jàpp naa ne ñëpp ko man moom mhm. ak basmala bismillahi rahmaani rahim euh, képp koo xam ne mën nga suñu borom may leen ndam hmm. te def sarax bi mu def bu soobee yàlla li ki des ñu toog ñaan yàlla suñu borom may ñu may ñu may ñu ndam bi incha allah hmm. allah mu nekk ay kàddu yu am solo lixlaas nag ñi ko xamul genre mañaani moom mooy qul huwa allahu ahad hmm. mi ngi noonu sëriñ bi lan ngay tëjee waaw xanaa di ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom rek mooy buur wa ma min ilahin illa allahu waahidul yàlla moom mooy buur bi nga xam ne moo na lépp lu ko neex def mooy faxaalun li maa yurid li nga mhm. xam ne lu ko neex lu ko soob rek lay def mhm. kon maa ngi ñaan suñ borom subhaanahu wa taala mu def ci réewum Sénégal mi jàmm mhm. def ko ci àdduna bi yëpp Euh, di ñaan ki nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou tamit mu yàgg fi loolu te wér ba comme ni ma ko waxoon léegi naal yi nga xam ne moom la naal maam mu àggale ko ba naal yeneen di mu ñaan la tamit sama maam ji Serigne Bay Sey suñu borom yokk ay leeram ak sama maam ji soxna Njóoba ñaan tamit ndeysaan mm-hmm. euh, suñu borom yokk ay leeram fa mu mm-hmm. nekk sama waajuru góor ak mm-hmm. sama waajuru jigéen ak ñëpp yàlla bàyyi leen fi yàggal leen fi lool te ànd ak wér ba yéene yi ñu am ci ñoom ñu mottali ko euh, di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di leen ñaanal yéen tamit waa Allô Sénégal suñu borom ba ngeen am ay télé yu mag ci réew mi yi suñ borom kattanal leen mm. musal leen ci lépp loo xam ne luy gàllankoor la mm. euh, di waxaat euh, nuyuwaat Sénégal yëpp di mm. ñaanal ñëpp jàmm Euh, di leen wax wa axiru daxwaana mm. an alhamdulilahi rabbil alamin mm. mm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndeysaan la ca maam sa da koy donn te doo donn mu dëgër macha allah surtout Serigne Mbaye bi fees dell ak xam-xam wàcce boppam macha allah nekk nag fierté dëkk nekk fierté réew ñu bëri di ko ndamoo ci xam-xam bi nga xamante ne suñu borom may na ko ci partage bi nga xam ne ñemee na ko partage ñu seet woon ko rek ngir waxtaan ak moom la citoyen la mi ngi noonu mbokk internet ne beneen émission jërë ngeen jëf.